acca mbokk internet yu wasaare ñoo ngi di nuyu encore une fois di leen jaajëf baax a baax di am mbégte ak contenté comme ni ñu koy defee chaque jour euh, di leen defal ay plateau wala ay interview exceptionnel comme ni ñu koy nu ñu amee habitude di ko defee tey nag ñoo ngi toog Djiby Djiby borom Teranga production c'est Teranga production alors Djiby ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di nuyu sa sa xarit sa lépp Basir di nuyu petit promoteur ak Alves sama doom day sama rak. waaw di nuyu waa Teranga production yëpp di jëral ci nuyoo bi Thierno Sall waaw mooy suñu DG quoi Teranga production structure la ñu ciy liggéey bari nañ waaw te yàlla def na xama structure bu beex la taxaw bu benn combat bu am solo diggante Albouri ak Gerdé le 26 février waaw di nuyu ñëpp ah di sama waa dëkk ko ak yaay ak ñëpp. Euh, te jii kañ kañ kañ kañ nga kañ maanaam sa sa institut sa maanaam production euh, commencé jibi production kañ nga ko non Teranga production ñu ngi ko créé ci ci début saison bi boo xoolee lu ñu yàgg waxtaanee la et def nañu ay début yoo xamante ne suñu dëkk ak yéen ko yi boo xoolee def nañ fa ay ay kii yu am solo ay journée yu am solo bien vrai ñu ngi doog ñëw Dakar mi def nañ fa ay journée yoo xamante ne am solo la donc suñu ñëwee ci Teranga production ànd ci liggéey bi ak suñu mag suñu xarit suñu lépp xam lu mu wax kon suñu ñëwee war nañ mën liggéey liggéey bu am solo quoi ndax moom bañaluñu dara Thierno Sall bien vrai mooy suñu lépp mais ñun la jiital rek ñu ci kanam waaw moom mu ngi ci mu ngi ci biir ak yéen nit ku ci mel ni Baye Diéli ñoom Cheikh Seye ak ñeen ak ñeen donc ñu ngi waaj ay waaj am solo encore ñu ànd ci liggéey bi ak Abdoulaye Ndiaye suñu papa suñu tonton waaw mu ñuy dooleel di ñu xelal di ñu defal lépp. ban combat nga taxawal fu mu toll nii. Albouri bu Grand Médine xam nga ko Sénégal dañ ko bëgg ak Jara 2 le 26 février. loolu ku la ko digal <laughs> attends loolu ku la ko digal ba yàggul taxawal ku mel ni Albouri ak Jara 2 loolu doy na waar ah, boo xoolee tey jii laan Ndiaye suñu papa suñu suñu tons la suñu lépp la bu ñëwee xam nga dañ ko bàyyi comme nu nu Teranga Production di doxe xam nga bu nga soxla xalaatu mag ñi ak ñi nga xam ne ñoom lañu fekk ak ñeen ak ñeen ak donc suñ ñëwee ànd moom rek bu ñu ñëndee leneen leneen lu bu mu bett kenn quoi ndax ki ñuy am nañ yaakaar ci moom te moom xam nga jël bëgg nañ itam ñëpp xam nañ ko ñu moom. est na nga taxawal combat bi noo yomb woon ndax boo xoolee toos Abdoulaat comme ni ma lay wax waxtaan nañ ci ay jours mais yàggul noonu quoi parce que moom boo xoolee làmb moom daanaka car macha allah li ko ci te bëriwut te ni mu koy doxalee xam na ko waaw. bu foofu maanaam yooyu moom demee na boor est-ce que am na yeneen xam ne ñoo ngi si ak bu si si si saison bi da ngeen tëggaat yeneen combat. waaw ñu ngi waaj bëgg nañ def deux ah, journées parce que boo xoolee février daanaka soreetul bien vrai dañuy doog a ñëw nag kon mënoon ñu am date bu jege ci saison bi. mais tey jii li ñu li ñu li ñu mébét mooy bu ñu paree defaat yeneen journée donc am na ay combat spécial yu am solo ñu ci taxawal yoo xamante ne mu ngi ñëw ñu ngi ciy liggéey ak suñu père xam naa bu génnee yaay wax Alboury leen lu gën a garaaw biir journée yoon wax dëgg bëgg nañ trois wala quatre ne day accompagner grand combat bi. combat a ànd ak rek tey bëgg nañ ci liggéey moom loo xamante ni saa yi leen lay doon waaw ndax basaare yàgg nañ ko suivre avant ñu ñëw ci làmb sax muy liggéey liggéey ñu xoolee ay débeem ñu ngi ko doon suivre ñu ngi xam nga ay ay vidéo ko seetaan donc suñ ci ñëwee nag xam nga nañ ci ànd ak moom te wasaare gis nañ ne dafa ñu ñëwee ci làmb ba dafa yokk parce que lépp la réer ci làmb boo demee wasaare da nga ko yoo xam ne moom ngay tëjee wala ñoo xam ne ñoom ngay gërëm na lay doon. waaw dañu nuyu ñëpp rek xam nga bu ñëwee ci làmb nag déwi bi xam nga gars yi dañu conseillé dañu xelal xam nga du balaa dara xew comme ni la ko waxee sànq suñu PDG xam nga Thierno Sall xam nga ñu ngi koy nuyu ñu amuñu fayam dañu taxaw ci lu bëree bëree bëri bëri waaw Baye Sall Dieng Paris sama grand frère Fallou Sène mu ngi États-Unis xam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Mame Samba Ndour sanc day taxawu booy su ñoo bokk dëkk Mame Samba mais booy ku ci am combat day jël mooy am lépp lu mu am jox ko ko waaw di ko leen jàppale booy nekk ci ay dynamique de victoire contre man mënu ma toog ko gërëm ma ko Mame Samba maa ngi koy saluer bu baax a baax ak Ousseynou Magam waaw xam nga di nuyu Mor Diouf Petersen fu may liggéey quoi waa Petersen xam nga ñun yëre la ñuy jaay ñu ngi Petersen maam Mor Lo mooy suñu délégué Pam Ndiol sama sama papa sama lépp ñoom Pam Mbaye waaw Ngopa xam nga ñu ngi nuyu ñëpp wax Dame Dramé centenaire xam nga centenaire ak xam nga sama bokku jaaykat yi Dame Dramé yaa ma gën xam Saliou Tine par état mu ñu ngi koy nuyu ak Ngopa gaa yëpp ñu ngi leen ñëpp ñu ngi ñu ngi fay ñëpp wax dëgg ñu ngi koy nuyu di ko woo ci combat bi ak ngañ ngañ borom état ñu ngi leen nuyu bu baax a baax la woo ci combat bi vraiment bëgg nañ xam nga soxla nañ sa xalaat ndax yow amateur bu mag a mag nga waaw yow à tout moment dañu bëgg diggante ak mais est am na loo ma laajul nag drapeau bi drapeau Karamba Karamba waaw Karamba. Karamba sama doomu ndey Karamba kooku aca ah, bàyyi wax si moom. kooku c'est le Karamba c'est le Karamba mooy Karamba au Sénégal donc sama sama doomu ndey la. borom jinne yi nee na ma dinaa dinaa tooj arène nationale su ma ñëwee dañ xam ne parents ñu doon gis ak yi bokkul ndax moom rek dafa saf làmb boo xoolee li muy dégager. ak tout te xam nga jeune la xale la mu nga jàppale booy boo demee côté Mbour ba ne jeunes yu bëri daf leen di jàppale tey jii xam nga war nañu mën a jël benn bés xam nga lu mu dee ñu décoré wala ñu wax ak moom Karamba ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko woo xama ne ko mu waaj ndax drapeau Alboury Jërëdoo yombul te bëgg nañu arène nationale gisee ko benn anam waaw di nuyu petit promoteur suñu doyen suñu lépp waaw moom moo fi ne waaw. merci beaucoup di jaajëf bu baax di la baax baax waaye ku ko tuddee ku ko tuddee moo jëla tuddee Karamba. borom 6000 dina yi. borom 600000 daaw kay borom 600000. maa ngi ñoo bi maa ngi doon liggéey <laughs> jërëjëf bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax di gërëm képp koo xam ne rek moo doon teewlu fii si Wassare Service merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en je vous conseille de vous abonner sur Wassare Lamb ciao. jàmm nii. mais àdduna taxala rek. mais booy loo def si salle bi gars yi. waaw seet si nga xam loo def si salle heure bi heure bi naaj bu tàng. waaw xam nga ni man ñëw ma dako ma ragalu ma lool de. mais yaa ngi si forme de. waaw yow luy loolu. mais sax yaa ngi ñàkk nii teg ci super. Oh. super forme. ci saa waay ji mais de si booli jël avance yi bàyyi avance yi ngay delloo. booy yow ku xiif àllum nen nga naan ko avance avance laay wër. avance ngay wër te bu la joxee avance nga delloo ko. waaw avance laay delloo. booy quatre fois ñu jox la avance nga delloo ko bu bari nga obtenir yow mbër nga kan mooy avance quatre fois xam nga booy tëngeej bi ak dof dof lu gi tëngeej am na ko ma mën a delloo avance am foofu mooy xam nga gàmmu gay gàmmu gay tëngeej ku dul gàmmu gay su ma fa duggee du jóg nga <laughs> naan ma ay gàmmu gay kooku mooy kan gàmmu gay delloo avance am yow déggoon ma kooku moom moo la wax loolu du ko si réseaux sociaux yi nga xool man réseaux sociaux laay dugg taluma réseaux sociaux je m'entraîne dire kon ku dul gaamu gay bu taxawee sama kanam ma leb ay fanam boo amee connexion duggal nga xool bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri. man dugg xolal dugguma réseaux sociaux jéem a vérifier Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket. waaye loolu ay wax na rek. toogal foofu xaar. Gamou Gueye laay seet. Gamou Gueye ah gis ma ko de waaye gaalam mu ngi nële. gaalam waaw mun nga ma wan gaal yi. gaal bële la mu ngi nële. mooy gaal gële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm gële. waaw amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa Gueye. jaajëf jaajëf. jaajëf eh, boy ana Gamou Gueye. Gamou Gueye dem na. fan la dem. xanaa du bii mooy gaalam. gaalam la kañ. waaw kon anamu mun nga ma wan gaalem waaw wàccal nga tëtal ma kër gaaw eh, mu ngay booy. ana gàmmu gay laa kooku mooy wër si dëkk bi naa man dañ maa jox a sama taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. eh tooñoo leen ma gàmmu moo ma tooñ añ leen seen añ mu ñëwee ngeen ko maa ngi koy wër si dëkk bi bizarre mais yow mbër mi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te faa mbër mais ñëw na fi ruube kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi gàmmu gëy bu ko jàppee da koy tëj. bokkul sax non gis nga gis nga lii wooy bokkul sax waaye mbër mu mën gàmmu gëy. fan la ko teg yow lu tax ngeen wax lu tax ngeen wax waaw mbër kama jee bi ndax kama jee mais yow est-ce que yow gis nga yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow. non non wóor na yàlla koy daan. non non man jàppee dafa def dafa def état suñu wóor na ci da koy daan wóor na yàlla koy daan boo xam ne nii da koy daan force man la koy daan da koy daan dafa am mbër mooy mbër bu nekk la mbër tamit la fi mu bokk làmb xam nga làmb waaye ci li mu wax sama gars yi kii day dégg gàmmu gëy ak dafa mbër loolu du làmb ma ne ko loolu du làmb combat la. ban combat loolu combat la. bu mu nekkee combat combat la. bu mu nekkee combat lan parce que combat bi taxaw na. le 24 décembre bii. 2022. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye dinañu bëri ci arène nationale ak waa Yaram Art Events. dinaa toog sama kër jàkkaarloog seen affiche seetaan ko. du yow sa kër ngay toog. waaw man stade laa jëm. kon dinaa la woo téléphone fa la may di naan sama yu sedd. loolu yëpp leer na le 24 décembre incha allah arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche.